الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله سن بوك إمام عبد العزيز نجاي بجاك ساكر كرتوا Sacré-Cœur 3 VDN moo del 5 أوت 2021 دي وقتان ak mu nekk sunu audio numéro 233 ñu fas yéene ak ndimbalu borom bi allah subhanahu wa traité ci sunu cas numéro bu jëm ci wàllu miiras masale mi mu ngi nii soxna su génn àddina la bàyyi fi jëkkëram bàyyi fi yaayam ak benn doom bu jigéen kon soxna si dafa génn àddina bàyyi fi jëkkëram bàyyi fi yaayam ak benn doom bu jigéen ñu laaj ñu nag naka la miraas mi di demee li ñu njëkk a wax mooy ne ñetti ñii kenn mun leen a tere doon kenn mun leen dàq ci ci miraas jëkkër yaay doom kenn leen a dàq moo tax ñett ñi ñoom ñooy séddoo séddoo alal ji jëkkër comme doom am na moom paaram cëram un quart la jëkkër su doom amee cëram un quart la yaay su doom amee cëram un sixième la ci kaa boobu lañ nekk doom bu jigéen su wéetee moom dong ci doom yi moo fi nekk benn la doom bu jigéen dong moo fi nekk dafa wéet amul beneen frère amul beneen sœur moom dong la su boobaa moom dafay jël kon genn wàllu alal ji 1,5. Je dis que je disais 1 quart, je disais 1 sixième, je disais 1,5. Pour ces deux débits, nous avons réduit au même dénominateur. Le PPCMB le plus petit commun un multiple, 12. Qu'est-ce qu'on a fait jëkkër un quart Il dafay a trois douzième yaay un sixième am nekk deux douzième Donc vous bi un demi nekk six douzièmes. soo calculer ñetti

normal na parce que ñoom ñett ñi ñoom ñett ay réservataire lañ kenn du ci asaba amul kenn ku ci mën a jeexal alal jëkkër du alal du du asaba mënul jeexal alal yaay ak doom bien entendu ñoom tamit mënuñ jeexal alal moo tax alal ji dafay des un douzième un douzième boobule nag mun nañ koo comme niñ ko xamee rek jël ko tas ko ci mbokk yi dagan na nijaay yi tanta bàjjen jarbaat doomu nijaay doomu bàjjen mbokk mbokk ñu jege yi nga xam ne wax dëgg yàlla duñu duñu duñu donn mën nañ jël un douzième bi des tas ko daal di leen ko daal di leen ko daal di leen ko jox du seen wàll ci miraas mi nag déedéet amuñ ci wàll waaye li des ci miraas mi la ñeen séddale noonu mu nekk lu rafet moo xam ne loo xam ne lislaam daf koy nangu sharia daf koy daf koy nangu kon mbokk yi sunu masala tey baa ngi noonu suñ ko dee jabaatee beneen yoon incha allah ñu indi beneen kaa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم